auzu billahi samiil alim min asheytaani rajim rabbana iftax baynana wa bayna xawmina bilxaqi wa anta xeyrul fatixin asalaamualeykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi teewlu ak diglu ak bàyyi xel seen seen bu mag bii di 24 actu site bi ak seen bi ak facebook bi ak instagram bi ñu ci bàyyi xel ñépp ñu leen nuyu den siyaare ak mbooleem li ci topp mboolem foo xam ne si rek dañ fay xoolee vidéo bi ñëpp ñuy bàyyi xel ñu leen nuyu leen siyaare mu mel ni tey ñu ñëw bëgg waxtaan a yéen ci seen émission bii di leeral xam-xam ngeen ci ànd ak sëñ Mortal Tawféex mu émission boo xam si chaque semaine daañu ñëw def ko waxtaan ci xam-xam waxtaan ci asraar ndax àdduna bi ci xam-xam lay dox loo fi gis rek xam-xam la. al ilmu di xam-xam moo yore àdduna bi tey damay ubbi dugg ci feebaru góor gu tële ci wàllu sëy lan moo ko indi tubaab bi ko woowee impuissance sexuelle góor bu fekkee sa deret doxut ni mu war a doxee ci yaram bi deret ji bu circulé wul ni mu war a circulé ci yaram bi mën ngaa amee tële ci wàllu sëy tox cigarette day indi tële ci wàllu sëy naan sàngara day indi tële ci wàllu sëy góor gu amee ndigg li metti day indi tële ci wàllu sëy tànk yi metti day indi tële ci wàllu sëy biir bi metti day indi tële ci wàllu sëy góor gu amee cholestérol day indi tële ci wàllu sëy cholestérol mooy koo xam ne kii dangay lekk lekk gu bari graisse lekk gu bari diw lekk gu bari xorom ak lekk gu bari sukkar dafay nekk ci deret ji day indi tële ci wàllu sëy tox cigarette day indi tële ci wàllu sëy naan sàngara day indi tële ci wàllu sëy koo xam ne ki danga am feebaru tension tension bi wàcc wala tension bi yéeg dafay indi tële ci wàllu sëy koo xam ne ki danga am feebaru diabète diabète type 1 wala diabète type 2 ñaar yëpp dafay indi tële ci wàllu sëy dañ koy saafara dañ koy traité garab duñ ci yor kun ko jox juróomi fan loo tële tële tële donte da nga am 60 ans juróom benn fukki at tële juróomi fan mu deñ te bu deñee dootul ñëwaat su ko defee kon numéro téléphone yi nga mën a jokkoo ak si Mor Talla Tawféex mooy 76 369 27 27 76. 369 27 27 mooy numéro téléphone boobu di jàll ci kanam écran bi soo ko defee ba ñëw ci beneen feebar leeral ko muy feebaru gémmiñ gi am xet gémmiñ guy xeeñ tubaab bi ko woowee mauvaise haleine ki mu nekk ci yow li koy indi bokk na ci feebaru diabète diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp dafay indi xetu gémmiñ feebaru res mooy foie dafay indi xetu gémmiñ feebaru ulcère day indi xeetu gémmiñ feebaru estomac indi xeetu gémmiñ feebaru mburaan day indi xeetu gémmiñ mburaan mooy siñ mi nàcc di génne deret dafay indi xeetu gémmiñ tux cigarette day indi xeetu gémmiñ naan sàngara day indi xeetu gémmiñ koo xam ne kii dangaa amee bañ bënn ngay def loo lekk mu dugg ci bañ bënn ba lekk googu dafa dugg dafa des dafay indi xetu gémmiñ moom it dañ koy saafara garab gi ci yor ku ko jox six jours juróom-benn fan te bu deñee dootul ñëwaat ndax garab yi ñu yor day ànd ak alxuraan karim yàlla moo ne maa farat naa fil kitaab min sey téere bàyyiwul dara lépp mi ngi ci biir alxuraan karim moo tax garab yi ku ñu ko jox boo ko naanee rek da ngay wér ndax barkeb alxuraan bi ànd ak garab yi mooy tax ngay wér. ndax yàlla nee na allahu nuuru samaawaati wal ardi masalu nuurihi kamiskaawatin fiha misbaax al misbaax fi sujaajati sujaajati ka annaha kawkabun duriyun yuuxadu min sajaratin mubaarakatin zaytunatin laa sharqiyatin wala garbiyatin yakaadu saytuha yudiu walaw lam tamsasu naarun nuurun ala nuurin yahdi llahu li nuurihi man yashaau wa yadribu llaahu al amsaal linnaasi wallaahu bi kulli shay'in alimun ci biir aaya bi nee na min shajaratin mubarakatin zaytunatin man yàlla ma barkeel garab yi rawatina garabu zaytun yàlla na bu tuddee garabu zaytun dafa yóbbaale garab yëpp tudd na garabu xewar garabu démbu garabu loolo garabu kàdd garabu wén garabu xaaxtoy garabu bisaab garabu lëng garab yooyu yëpp dafay am secret bu ci nekk garab nag day am reen xos xob ak doomu garab ñeent yooyu moo am ci garab reen xas xob ak doom garab gu nekk reen ba la muy jariñ bokkut ak xas ma la muy jariñ bokkut ak doomu garab ba la muy jariñ bokkut ak xobu garab ba la muy jariñ garab gu nekk am na nu ñu koy wutee am na garab yoo xam si yaa ngi koy jëndee perkal bu weex am garab yoo xam si yaa ngi koy jëndee suukar am garab yoo xam si yaa ngi koy jëndee xorom am garab yoo xam si bala nga ko dagg faw nga sotti fa meew meewam nag wala meewam xar wala meew meewam bëy wala meewam gëléem am garab yoo xam si yaa ngi koy jëndee maanaam pièce xaalisu pièce pièce juróomi dërëm wala ñaar dërëm wala fukki dërëm nga soog a garab gi am na garab yoo xam si yaa ngi koy jëndee ay alxuraan karim wala tur yàlla ngay werd soog a dagg garab gi am na garab yoo xam si boo koy dagg yaa ngi ko war a daggee côté xibla penku am yoo xam si côté ginnaaw am yoo xam si wetu ndeyjoor nga koy daggee am si yoo xam si wetu càmmoñ am na garab yoo xam si yaa ngi war a dagg guddi gi am na garab yoo xam si yaa ngi ko dagg bëccëg gi am na garab yoo xam si yaa ngi war a dagg nawet am na garab yoo xam si yaa war a dagg noor yooyu yëpp nag jàng nañ ko ba xam ko moo tax mbooleem koo xam si kii ba ngaa faju suñuy garab boo ko jëlee dinga wér ci nu mu gën a gaawee di siyaare baax kilifa yi nga xam si dañuy teewlu émission bi sëñ Modou Mbacke taaw sëñ Mourtala mu suñu fallu ñu koy siyaare baax di siyaare baax it Baye Glass Mbacke moom sëñ Mamor moom soxna say jaxate moom suñu fallu dafay teewlu émission bii di leeral xam-xam di siyaare baax sëñ maam Cheikh Mbacke moom suñu fallu moom suñu Mourtala dafay teewlu émission bi sëñ Saliou Mbakke moom sëñ Fallou moom sëñ Mourtala dafay teel émission bi ak waajur mu jigéen soxna maam Mare Mbakke moom sëñ Souhaïbou dafay teel émission bii di leeral xam-xam ma ñëw ci beneen feebar leeral ko muy feebaru bët tawati bët yi am na bu tudd trachome moom mi bu tudd kalaa bi jaam la ko joxe waaye nag day wàlle mbooleem koo xam ne kii am nga feebaru bët na xam si boo ko saafarawut boo amee doom sa doom mën na ko am feebaru la sa waajur jigéen su amee wala sa waajur góor mën nga ko am moom feebar bët am na ci feebar bët bu ñu woowee per bët bët per la per bi dafa am lu ci ñuul am lu ci weex liy ñuul ci per bi mën naa mel ne lu fulu giri verte sans couleur wala bët bi lu ci ñuul ci dugg ñuul ñuul bi am benn weex weex bouron bi nekk ci ñuul ñuul bi kooku lañu ñu peru bët am na ci feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow suba gi di nga mën a gis waaye guddi gi doo mën a gis am na feebar bët boo xam si bu nekkee ci yow boo nekkee fa làmp doo a gis ndax bët yi lumière boobu mooy tax ba doo a gis am na ci feebar bët si bu nekkee ci bu dee asamaan si dafa tàng doo mën a gis ndax tàngaay woowu baaxul ci bët bi di dee tax bët bi du gis am na ci feebaru bët bu ñu wooyee cataracte am na ci feeru bët bu ñu wooyee glaucome glaucome mooy bët bu bët bu am tension moom it dañ koy saafara kim dal mën nañ koo faj ba mu wér faj gi ba mu wér juróom-ñeent fan la neuf jours mu deñ te bu deñee dootul ñëwaat kem daal da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 en même temps numéro boobu it am na whatsapp 76 369 27 27 mboolem ku nekk bitim réew numéro bi am na whatsapp boo ñu vocalé wax ñu sa soxla boo soxlaa garab wala ay ñaan. daañu fexe ba nga jot ci ak foo mën a nekk ci àdduna bi daañu mën a fexe ba nga jot ci ndax alxuraan karim ñépp la fi nekkal yàlla nee na maa farat naa fi kitaab mi shay téere bi bàyyiwul dara lépp mu ngi ci biir alxuraan karim yàlla moo ko wax yàlla waxaat na ne wa nunazzilu min alqurani maa huwa sifaun wa rahmatun man yàlla maa wàccee alxuraan muy saafara waaye nag saafara gu ànd ak yërmande yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci xadis ne at adduwaaw silaaxul mumini ñaan mooy nganaayal jullit soo defee kon feebar bi may tëjee mooy feebaru émorite émorite olof di ko woyee jàngoro Kajoor émorite dafa am bi nekk ci biir am bi nekk ci biti émorite bi nekk ci biir ki mu nekk ci yow boo lekkee du gaaw a rees du gaaw a rees sa biir bi jooy naan gurur ngay seere toog ñaari fan ñett doomaa dem toilette doomaa dem wanag amaré bi nekk ci biti ki maanaam ki mu nekk ci yow fi ngay demee man ak mooy def benn bul benn tab tab googu tooke moo ci nekk dëtt wala deret tooke jooju faaw mu deñ nga am jàmm amaré na feebaru toog la ñi nga xam si dañuy liggéey toogaa bi yàgg ñoom lay dal tailleur yi ak chauffeur yi ak mbooleem koo xam ne ki dangay liggéey liggéey toogaay bi yàgg mën nañ ko saafara faj gi ba mu wér fukki fan la mu mel ni kon mbokk yi loolu mooy jàngoro émérite kon damay tàggatoo mu nekkoon seen émission leeral xam-xam ngeen ci ànd ak sëñ Mortal Tawféex fii seen seen bii di 24 actu képp ku bëgg a jokkoo ak ñun numéro benn la yomb na 76 369 27 27 76 369 27 27 boo nekkee bitim réew ci ñi envoyé vocal waaye ñi nekk Sénégal mën nañ ñëwoo directement ci 76 369 27 27 boo ñu woowee directement jot ñu appareil bi du fay jërë ngeen jëf yéen jox dig daje ci beneen émission leeral xam-xam ak suñu Mor Talla Tawfekh fii seen seen biir 24 actu